Géant ci loo nekk ngi si jàmm ça va alhamdulilah ak sin ak noo def naka bu yaa ngi si jàmm ça va alhamdulilah gis naa laa gis léegi danga maa bàyyi <laughs> yaa ngi si jàmm waaw ah, ça va alhamdulilah ani waa kër ga ñu si jàmm ñu ngi fii mais mu ci biir ana Abdoulaye moom moom ba mu dékkee la dem moom daal boo xam tarif <laughs>

këyit yu mu doon lijjanti. dëgg pour mu génnee suukar ak dugub. Mm-hmm. incha allah suñu borom mën na si def xéewal. amul toogaay nag. waaw man mm-hmm. euh, dafa dogal ni ay kilifa la am na loo xam ne. Mm-hmm. bu ñu ci àggee def ko rek moo ca war. yaay nga foog ne Ablaye dina gëm ne Moustapha wax. Ah, sax Moustapha Ablaye na ko Moustapha. Hmm. nga xam naa ne Moustapha moom daf fay gis si laajte kan. kon na loolu la waaye nag nga génneel ko ko moo gën. loolu laay de sax loolu laay def dinaa ko génne. noonu laay def ndax Ablaye bëggoon ni Moustapha dafa doon ñaari yoon biram ko du jóom maamam ak baayam yaat ma bi. <laughs> yaa daa mel yaa ma gën a faa Moustapha de. ah bi dinaa ko faa ndax qualité yi nekk ci moom. ma bëggoon nga sol saw dàll mhm. dem doxali ma soxna mareem soxna mareem mhm. du ma moo nekkoon soxna sëñ yanna ok yow yaa ko xam léegi daal mhm. dama bëgg ca moom waxtaanal ak moom te yow xanaa xamoon ni Moustapha sa jëkkër yoonu yàlla la te dafa mel ni danga kaa ba tey na ne ko dama bëggoon ak jaamu yàlla mu ñëw mottalee ko ci man. salaamaaleykum. aleykum ah. salaam aleykum salaam wa rahmatulah. siyaar naa leen. leen dafa coono. sant rek ba am ngeen jàmm. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. waaw. <laughs> tabaarkalla. maa ngi ziar. non non baax na dafa coono. maa ngi taw fii nga li ma la moo gën bu nit. wallaay wallaay. ay maam daan def. bu xare musa naam mm. géwél la daan daw di jitu di dékku bal ya mm. moo tax bi mu sé mm. man la xel dal na légui nak mom mi da am fu mako yabal té te bëgg nga sol saw té and ci ak mom ngeen dox loola ala nga bëgg mu gungé ko allah bu ngeen génnee da ngeen waxtaan allah amul benn problème té loola rek jërëjëf jërëjëf yow kay da soxal sét ni nga ko lañ la koy kon imam comme ni nga ko bëggé rek ñoom dañuy daal di jóg léegi dox ko de. waaw ah. incha allah non non non bàyyi naa ko seen loxo. Ah, xam naa ne lii fi Moustapha di ñëw loolu neexu la loolu je le sais bien mais da war a comprendre ni Fanta benn doomu kese la te ñun ñoo war a comprendre hmm? man waxuma ñëw bi Moustapha di ñëw ci kër gi neexuma de mais li ma mënul comprendre mooy jigéen buy seeti góor ba pare fu mu toll moom lay waxal téléphone chéri loolu yëpp d'accord c'est pas grave tant que fant mi ngi nekk ak Moustapha rek sama xel day daal ko franchement yaat ma jóg lii dala wolof njaay di wax naan ko xamul xamoo sama nijaay dafa xamul li xew rek waaye bés bu ko xamee moom mooy taxaw ne Fanta ak Moustapha duñu jaxasoo. waa bintu mi nga doon yuuxu te xam ne Pa Samb doom naw la te xam nga sëñ yaat ma bëgguloon lii de. dangaa madame yow yow xale yi ñoo ma nar a dofloo xale yi ñoo ma nar indil problème yoo xam ne man xaw ma fu ma koy nettalee rek. yan problème Pa Samb. xam nga bint lu mu def lan la def. jóge fi tàggu ma ne day dem seeti benn xaritam bu jóge France. waaw ma kontaan ci loolu ne ko demal. loolu dara newu ci. daraa ngi ci kay. Ah. xam nga ku mu hmm. xale bu góor ba fa nekkoon. di jaay yàmbaa ba ñu rapatrier ko indi ko fii. waaw Sam loolu na la. yaa ko dégg ma la ko teg ba yow nag yow. yow man nag maa xamee waxantu nag maa xamee waxantu. maa man kay dama ndax leer na la wala da nga ma ni la teguma ci bët. waaye Bintu moo nettali ci gémminam wax jatu. jattu ñoo wax ah curki jam jattu moom du fen waaw baay waaw miraas yi moom fan ngeen si tool bon jot naa cee waxtaan ak Moustapha mu ni nañ ko néggandiku ba xam fat fat sàmb fan lay mujjeeg testament boobu waaw loolu de dëgg la moom fat sàmb de testament boobu fu mu toll rek testament testament waaye <laughs> nag yaar ba fii mu tëdd tëraay ba yàgg na fa de dëgg la ku ne xam na ni yaat na yaat na tëraayam boobu yàgg na waaye Fat Samb dina xam ni ku ëpp ti mbokk mënoo kaa jëw te dinaa leen taxaw bu baaxa baax ba ngeen xam ne yaat na am na rek. <laughs> mais namm naa leen de. baabaay lu wànq dox noor. xam nga nag nag nag nit ku wëddoo làmmañ ah, ku wëddoo làmmañ boo noppee rafle rafle kenn du nga dëkk bi mayatuñu muuma nit ba dëkk mayatuñu muuma na ko de faaw nga mën di yor sa làmmañ wi di wel wel di wax ndax naaw la daa faar waaye xam nga sëñ yaan mu génn àdduna ba tey yow da nga ñoo teg di tege bu ma jooyloo nag dimbali ma rek bu ma jooyloo nag yéen tamit naa ci yéen de bu la tax ah, a ñëw nga ne ñun de dañu amoon sa yóbbante. waaw. maa ngi leen maa ngi déglu kon baax waaye. déedéet toogal toogal toogal si nga bokk ci nga teew ñu ne taa. ah ba. allo Tamo. sama yaay. demoo yóbbu natt. sa yaay kon mi ngi ci natt yooyu nga xam saa bu ko tegee kenn du ko gis ba léegi. waxal la. man maa géré loolu ak moom. Ah, mu sedd ñu sax. sinon yow yaa ngi ci jàmm. waaw ah, tàng de la def. yow daal ngi ci seen seen sinab yi rek. suñu sinab yi xanaa. koy def ñun ñaar. xanaa pas soo solee yére olof rek ma sol yére olof. te daal yére olof lay sol. waaw. <laughs> xam yow sama xarit la dama bëggoon ñu waxtaan ci sa diggante yow ak Moustapha lan moo ci nekk Moustapha yaa tax ma xam ko ay. Moustapha am na diine te en plus dafa yaru waaw loolu moom mën naa ko seede mi mhm. li ma jaaxal xam nga mooy lan lan moo tax sa yaay di inquiété wu ci ñëw bi mu ñëw fi ci la fi seet si donc waaw man dama bëgg Moustapha mais maa ngi def le tout pour mu xam ko. d'accord dégg de. tey moom xale bu jigéen du la gis. damaa nekk ci liggéey talu may wax. damaa defe ne sa taalibe jinne bàyyi ñoo lay feeñu yaay te nga wax li la fi indi damaa nekk ci liggéey Moustapha leen rek laa lay yëgal na fexe ba bu leen ñàkk kersa bu leen jànni loolu rek laa la bëgg a xamal dafa fekk sax nag tànk yi mooy dafa am xibaar bu fi wàcc xibaar waaw ndax imaam daf fee yónnee si barki démb ne def ma bëgg tak soxna. imam kan la yab yat ma biram ko di jóg ne la lenn imam lim fi bëgg mënul nekk te ya yow kuma ma nga. yow Moustapha du ma sa morom la wax ma sa nday mënoo maa jur man mii maa la jur gis nga fi nga toog réeru ci samay gët man man damaa seeri sa baay ba mu gërëm ma kon suma nexé neexee ku ma neex ak ku ma saf mom lay sëy té nak dama bëgg nga xamné duma sa morom sa nday laa réseau bi tey la depuis démb connexion bi mënul normal.

wa baxna dia na ci merci beaucoup way waay jeuf merci beaucoup La ilaha alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin billahi yàlla du nit yaay xolal sama demande bi nga xamanteni dama ko defone ñoo wo legi legi legi legi legi neena na ñew ñëw ma ñew signé sama contrat suba ma commencé liggéey. inshallah allah kan gis nga mustafa ñew na fi dégg di set seet ko da nga génn way ni lama ko waxe buna ma sa demande bi naa na nga ci def sarax ma xam ma la ko waxe do ko def ma defé ko ni mako waxe wala rek xewul gi dim ñewé ni yeen ma wax len ma wax len sama waxi mbégte mi yi ngeen may wax waxi mustafa man goma yoy ha bay leen seen yi ngeen def kare koy sonu ba day def ay demande ngeen ko waxe mustafa Moustapha muy ma sama chemise bleu bi laa bëgg wax faasal mako dimbali ma rek ngir yalla bu mako bañal bu ma gantu bo ma gàntoo du baax chef de quartier euh, man de bi ma amee njàqare si mi dama la ko expliquer Ngani ma sa waji, ji rek mo dara ci mbirum ma mais depuis lors rien du tout gisuma ci ben avancement Lolo moo tax ma woowaat leen man di monsieur le maire bi nga ma wooloo ci laa dem woowi ko ngir mu leer la hmm. loolu yi moo tax ma ñëw bëgg laa leeralal mbir mi dugg naa ci fanaan naa ci yendu naa ci dugg naa ko ba sori ci mom loolu waye mbir mi dafa am lu dess muy sarax bu dess mu yentam da ngeen wara bay bàyyi lu ñu wax ci kër gi rek ngeen tuddu mustafa comme si que man je ne représente rien pour vous quoi il la la yow mustafa dem ci suba ñew na fi sama yaay dem na balay wo mom mo moo ne ko jaru ko sa dossier yi ngay wax li tax yow sax ñu wola tay xamoko sarax bi mu génneloo sama yaay mo tax ñu wola no fo ok kon yéen da ngeen bëgg jël Moussa fa tek ko palaasu yalla yow munoo gëm ne batay tey Moustapha daa doon tontoo yàlla. loolu duma ko banel ndax soxoruma surtout Moustapha sama cousin la su ma neexee sànni ko ay dëkk su ma neexee def ko lu ma neex wax ko lu ma neex mais man je vais te dire une sama véritable problème ak Moustapha xam nga lan la. Hmm. dama ko gis am na jigéen joo xam ne moom laa njëkk a bëgg sama xarit waaw maa ngi wax sama fulla nga may ree beneen bi mooy ma am sama liggéey ñu woo ma ngeen ni Moustapha loolu neex na ci xol maa ngi doog a xam li tax nga mere Moustapha waaye xale bu jigéen boobu de war naa koo xam. lan nga bëgg a wax ci sarax bu des. mooy juróom-ñaari xabbon muy juróom-ñaari nag yu ñuul yu nu war a am def sarax bi. deret ji lañ war a jox jinne yi jinne jooju moom dese dafa am yaakaar nga ni loolu buñ ko lijjantee dina sotti incha Pape. waaw Moustapha. ziar naa la yaa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm sant bu baax a baax. alhamdulilah. yaa woon ci kuréel gi. ah gis <laughs> nga rek. alhamdulilah ci mbir yi rek. dëgg la. ci jàmm. mbaa yaa ngi ci jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah. Eh, Moustapha. Mhm. sa yaay wax na ma lépp. wax na ma li imaam namm ci moom. princesse. oui papa. moi je pense à quelque chose. Moussa Fall. Moussa Fall waaw. mais que Moussa Fall duñ ko doo ko invité mu ñëw daal si benn. ok. Mm. oui xaar loolu moom suba sax lañ koy def xanaa. ah bon waay. d' accord donc naa la jox xaalis comme ça nga préparé ko. ah. ça mhm. fait l'occasion sax après ma invité waale sama copine bi Kumba. Mhm. ndax mu mën a ñëw gisaale ko daf koy laajte. ok pas de souci. la macha allah. kër gi benn invitation amu fi. comment. yow lay wax sama doom duma ko encouragé ci ay caaxaan. i kon man commandant man may caaxaan ko nee bi mu la woowee di la wax li ko imaam wax danga ko yóbbu te loolu Moustapha du sa cër xale day jox mag war xanaa kay sama yaay dafa fàttali ni imam ak chef de quartier ñoo fi àndoon ak monsieur le maire ñëwoon fi pour sulli sama bàmmeelu baay bi. sulli mais yow c'est quoi problème mais su fekkee ni dafa am loo xam ci Moustapha te ñun xamuñu ko mais wax ñu ko ñu xam ko benn yoon. quand man sama yaay saa yu ñu waxee ci Moustapha rek day énervé en tout cas fii une invitation à mon fils. Eh. et puis elle ose me défier moi. comprendre ko Moustapha ko mukk kay di la rek nga pas ne man mukk ne imaam sa <laughs> bas man pas rakam xalaatuma kaatoon gis nga pap, nga doon sama yaay mu mu gënal fukki ci nu yoon keneen di jàll ci ginnaw. man ma doon sa baay ba am nga jàmm nga jéggi de waaw waaw waaw waaw ah, waaye <laughs> bàyyi nag dafa dem boutique ba. mais ah. xanaa sa belle occasion di ko toog ñu teg ko nag. ataaya la jënd ah. tey moom jëndoo ma. ça va ko programme. kon ñëw daal léegi. suñu toog sax ak yow programmation lay la. nañ ko programme incha allah. loolu rek bu ñëwee neexul jaaxal na. Ah, moo xew ba nga woo xaw ma fu ma jaar lan moo fi urgent ba nga woo nii rek sànq ba tey. man daal Zeyna. Mhm. Ablaye moo ni ma. benn ex copine mooy seeti léegi Moustapha. Mhm. waaw. te man damaa bëgg a jaar bi nga jaar ba dégg alxayri. kon de toogaay amatul. léegi nag mu ñu def. yes moom dafa guddi. da ngay ba suba nga ñëw ma yóbbu la ci sama benn paa. sama copain. kàlla euh, kii euh, Moustapha muy def. lii noonu dem na pourtant nee naa ko toogal sax xaw ma ataaya bi bañ na ah. Moustapha wóor na rek wóor na ma ne ko Fanta la dem. waaw xaw ma nag ba xam mais xam naa ne daal fa la jëm quoi franchement. non man booy bi booy bi man ay mbiram mooy loolu quoi. mais nag ak lu mënti xew bul bàyyi mu sedd bul bàyyi mu sedd toppal affaire bi jusqu'au bout yow bul bàyyi Fanta lu leer laa la booy. bàyyi Fanta dina baax ba ma defalee li may defal ba pare ba ma def ko ci lekk bi kàpp gi lépp a leer. li wax nii. wallaahi. Zeyna bu ma nax dinaa la xaar. waaw bu suba dinaa la woo nga ñëw ñu dem incha allah. waaw baax na. am benn da nga a ba fi ma jëm. bur ma dégloo xol déglu ma ak xel. lu xew. xale bu bi. ndax yaayam sawarul seen biir beneen bi mooy am na xale bu jigéen bu am cofeel ni man dina la indil ñam boo ko lekkee di nga am jafe-jafe yu tar ci sa wér gu yaram. kooku war a xaw ma benn tub bu dul sa bos jàppal ni mun na nekk sa jabar yoonu yàlla dañ ko ko digal waaye du ko bon. Ulay kooku mënul def lu mel noonu. far na si weewu béy ni dafa am jigéen bu lay seet moo tax mu yaakaar ni su ko defee doo ko rëcc bul ko ci mere waaye du ko bon. mais fan ngeen toll ci mbiru bàmmeelu yaat ma coppi lan moo tax ngeen ko ubbee fekk dara. ah dafa mystique hmm. dina xam ni état amul sentiment ci yooyu tere tere ñu te ndax ndombal tank bi la askan bi jox sama bammel bobu bés boo ko di nga bëgg nelaw mu tëla yaa gàtt xel xanaa da nga fàtte bi nga ànd ak sa géwél ci campagne bi ñëw sama kër ngir ma ñaanal la bàmmeel boobu moo nar sa politique bàmmeelu yat ma jóg bii ngi bëgg a doy waale ngeen di bloqué sa carte crédit depuis pay ah man léegi fan laa jëlee xaas bu ma la lebal te sama papa mu décédé ba léegi kenn miraasagu moom moo fi téye nii ba léegi asalaamaaleykum بعدها مرة قليلة وعليكم السلام نورف وعليكم الحمد لله والله سخنة مريم لا سخنة امم سخنة مريم طب احنا قاعدة شي بينا والله

waaw dëgg la jot naa sa yóbbante ndax naayam ak mbay ñëw nañu fi wax ma lépp man nag maa ne la woon ñu may mot ak ni tuuti ndax nag umpale ma sax ne xam naa ne jigéen laa taaru jigéen mooy sëy te xam naa ne bu suma borom kër làqoo war na maa wut ku ma denc mhm. ma mën cee toog mën cee jaamu yàlla ndax li sel ma jaamu yàlla si day gën a dëgër nag. ana sa mag bu dof boobu. <laughs> eh nangu naa ne nag Moustapha sa doomu ndijaay la ngay doomu bàjjanam wante. Hmm. du ma nangu nga naan ko dangaa dof de. <laughs> d'ailleurs lan moo tax nga naan ko dangaa dof. gis nga Moustapha man dama ko xam bu baax place baayam boobu mu toog xale la dafa teel ci moom xam-xam bi matewu ko ba pare âge bi tamit matewu su fekkee sama papa préparé na ko ci nag damaa foog ne yéen ñaar am na lu nekk seen diggante. waaye dafa fekk ne dama leen ñu may ma tuuti rek ak negu nii waaw ba ma xalaat. waaw xam nga damaa jóge jàkka ji ni julli tàkkusaan rek ni xaaral ma yegg si sama bopp. ndax nag mag lu ko wax loo rek moo ko dugloo moo ko doxloo. te ginnaw yonne na ba batay man dina ñew sama bop ndax duma tiaxal du fo te ma deg ci yow ku baax du ma ni sax deg waaye dama ko xam ku baax nga julli jullite nga mm-hmm. ku japp sa jambur nga kun mën na ne luy lekk sukar bu la séenee nga motax dal mani da solo sama bop sama dal samay dàll mm-hmm. ñoo waxtaan ak yow ñu jaamu yàlla lii rek naa sa naa sa bu baax. juste rek man ak moom c'est toujours comme ça depuis bi ñu nekkee xale. Ah mais nag euh, incha allah dinaa dinaa dinaa jaar kër ga dégg nga. waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw dem. soo demee nga nuyul ma Ulay. dina ko dégg incha allah ok merci portable bien. dalee si te nit nit rek lay doon hmm? te nag xaayaan ko dégg séeréer waaye dafa fekk tal ni ah, mbir mi damaa bëgg ñu may ma tuuti ak diir ma xalaat su ma xalaatee rek tontu bi dina ñëw bu soobee yàlla sa ndaw yi ñëwoon naa joxaat tontu bi. jërëjëf. Hmm. kon baax na damay ñëw àgg daara ji ana bàyyi mbaa dafay géej rek. Baye Mamat hmm. soo toogoon léegi ñu fekk la macha allah moom de uh-huh. bis bu nekk rek mu ngi ñëw di nemmeeku su eh, xale yi di nemmeeku su kër gi ak njaboot gi macha allah baax <laughs> yaay bu la fayee sa bor kenn du fi géej jërëjëf na kon maa ngi ñëw àgg a jëf ah, yaa ngi dem yàlla fi yàlla saxal jàmm sant ah, jërëjëf jërëjëf nuyu ñu waa kër gi bu ñu fàtte si ñaan incha allah fàtte si ñaan allah incha allah jërëjëf man de du ma tëdd mukk te mu fi xool naka ngeen toogee ndax dëkk bi dafa xat ak wiir wiiri rek jadd jadd yi loolu donga la woon moo tax ma ne woon naa ko jaar xool leen naka ngeen toogee ana xale yi mbaa ñëpp a ngi si jàmm si bu baax alhamdulilah yéen dangaa baax rek moo tax coono bi yëpp nga koy daj dëgg yàlla a ngi ci jàmm alhamdulilah benn problème waa jàmm leen ñu lay dëgg la <laughs> dëgg yàlla de fa semble ndax yow ba sa mag hmm. ñëw di seet njaboot gi hmm. di leen caytu hmm. loolu nag ah moom ma dëgg de xamal ne gëtam yaa ngi tegu sa kaw ñun moo dañu dellu yàlla jeexal la jàmm. te nag ñaanal la àpp sore. amiin amiin amiin. moo am. waaye kon caaxaanoo ci sa diggante ak El Capo. caaxaan gis nga kii. dafa soxla ko ko lebal xaalis en attendant ñu débloqué compte bi ne France. ah ay dóor la rek dóor su ma ko yoroo dama koy def xaaral sax sama yaay ñëw moom bu ñëwee dina ma ko defar yow nag dama foog ne dañu laa liggéey waaye sama yaay bu ñëwee dina jàpp ci combat bi. te sax noonu lay demee bu yàbboo ñu liggéey parce que yaat ma biram Codé Diop. Mm. sax mag jooju. Mm. ginna ma teraanga junne. ci àdduna moo tax munu ma kaa fay. moo tax li ma war mooy toppatoo ak njabootam. nii ngeen toogee nag neex na ma trop te rafetlu naa ko lii rek la buggoon ci këram ak njabootam juboo ay jabaram juboo parce que loolu mooy àdduna te xam naa nii nii ma leen fekke ah fa mu tëddee tàlli na mm-hmm. kon nag dama naan alhamdulilah rek laa war fantam laa dal man daal démb Moustapha moo fi ñëwoon defal ma surprise yow. kenn mooy Moustapha. <laughs> xale bu góor boobu de bu ko gisee rek tàqali ko sa gox. <laughs> xanaa di ma ko présenté. woy ma léegi rek nañ dugg ci biir ma kaala ko yaa ma gën a xam wala. jëm heure bi. may dox sama soxla. doxi sa soxla ak dëkk bu wóorutul bi ak sa colin bon gi Bintu. yalla ma sa yoon sama solin ak fuma jëm. Bintu bul fatani sama baay yatma biram biram Codé job daf ma leen denk sama tante bi ngay génn gis na gisuko hello gisula ñaanu ma yalla bu la ndogal dabé ci yoon bi yow lan ngay wax. yow mom sa lamine ji dama ko ragal ma ci musay rek. foo jógee ni man de damaa demoon signé ji sama contrat bi xam nga suba laa war a commencé liggéey en tant que caissier ci benn supermarché. ah d' accord ah loolu kay alhamdulilah alamin sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. mais booy man instant bi xam la gis. waaw liggéey mën a récupérer Fanta. waaw mais yow nit liggéey pour mën a récupérer Fanta kon Fanta moo tax yow ngay liggéey. Hmm. booy man xam naa bu baax a baax sax fi ngay xalaat gis nga Moustapha foog ma woon ko man lan laa capable foog ma ko man maay kan man lijjantiwu ma ko sax. peut-être yéen ñeneen ñi ñoo koy lijjanti wala suñu waa kër wala yow mi wala keneen ak keneen il faut ma wan ko man maay kan dinaa dem ba ci Fanta tegal ko hmm. te bu taxawee sama diggante ak moom ma écartal billaay walaay non wax nga dëgg xoola bul bàyyi mu sedd non du ma bàyyi mu sedd bul bàyyi jamais mu sedd du bàyyi mu sedd saa yu ah kàtt kaw bàyyi mu sedd parce que booy bi li mu bëgg soxna si dama bëgg nga bàyyi Moustapha mu ñibbi ndax dañoo war a gisee ci kanam. dama ko bëgg a jiitu néegam pour aar ko. loolu rek taxul xam nga ne danga am cofeel ci Moustapha te dafa war a am soxna am njaboot. bés bu nga gisee jigéen bu gën ci Moustapha dinaa noppaliku Moustapha dafa am yëg ci xale bu jigéen bi mais duñu sëy te yow xam nga lu tax. góor gi tëj na sa bopp. Hmm. góor gi tëj na sa bopp de. doom ba da ngay

waaye li eh. e ma la waxoon ba fàtte woo ko. mësuma koo fàtte xam nga Binta yow lan la man duma sam morom gis nga fukki junni yu mayor yor di ko jox ab jaaykatu yàbbaa ya bu ñu rapatrier laa amul man foofu nag laa yam dimbali ma. yaay jaaykatu yàmbaa ya boobu ba ma nekkee Paris lu nekk defal na ma ko. kan la concerné yow.

de boo doon gis doo ko ñeme. li ma àndal de moom doy na waar trop sax. waaye moom li ngay wax garaaw na de. ah mi nii de tani jee ko wax. man de maa ngi commencé tiit. waaw. tey ngaa dem seeti Moustapha am na ko mën na ko yéene na la ko fàtte woon naa ko sax. Safa mosoo koo jox cëru mag. ñu ma gis nga ko du moom mooy tooñati. yow moom fii bara pàcc la waaye damaa laa bëgg xamal ñaar gis nga Moustapha alal ji mu yor ëppalewu leen ci yéen ñaar ñiy toog alalu baayam la te seen alal la loolu laa bëgg nga xam ko. Moustapha de. alal ji bu yor da koo lew doom kii ma dama yaakaar ne dañ koo soxla. Moustapha am na lu ma la musul wax ci sa mbirum soxna. dama foogoon ci sama yaay ngay wax sax. soxna Marème bu am ngor te gërëm naa ko. bés bi ulay juddoo. sa doomu bàjjen yaama laa ko takkal morso ci tànk lay jooram façon yéene mu doon sa soxna nang ci bàyyi